Rafah TV abonné leen bu ngeen cliquer fii ci abone ngeen laal cloche bi rek mën a abonné saa su ne ngeen di am yu am solo yiy bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer nañu fexe ba euh, dëkkuwaay yi gën a rafet gën a ñoŋ loolu moo tax mu defal ñu ay recommandations pour que ñu reboiser axe routier yi ak axe autoroutier yi ñu euh, fekk fi nag ci Touba euh, ci ndigalu xalif général bi euh, yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér liggéey bu rafet liggéey bu am solo parce que booy dugg ci ville de Touba li lay njëkk gàttandu mooy alignement cocotier yi nga xam ne moom moo sëq ñaari voies yi nga xam ne moom mooy duggukaayu Touba loolu nag gis-gis la bu rafet ñu si sant yàlla bu baax. di ci gërëm bu baax xalif bi euh, ci euh, tegtalam euh, ci ndigalam xam nañ ne li nga xam ne moom moo ñu yëkkati jiitu nañu si parce que mu ngi ciy def lu lu mucc ay mu ngi ciy joxe ay tegtal li ñu fi def tey wane na ko tey ji nag bu dul woon li nga xam ne moom moo ñu tënk mooy mbas mi jeunesse su Touba yëpp dina génn jeunesse su département de Mbacké yëpp dina génn Euh, jeunesse su région de jurbel yëpp dina génn euh, pour que li nga xam ne moom mooy woote Séné woote président de la république euh, pour que ñu daal di ci dem parce que moment bi favorable na ñu ngi ci biir nawet te macha allah ñu ngi gàttandu nawet bu am ndox yàlla na ko yàlla def ndox mu barkeel. Sénégal mu ngi am 186 forêt classée forêt classée bi ñu njëkk a classé. mu ngi woon dans la région de Ziguinchor sa euh, date doctobre octobre 1930 moom mooy forêt bu ñu njëkk a classé euh, ci 136 euh, forêt classées yëpp cinq forêt rek la ñu classé après les indépendances bi président de la république ñëwee ba léegi avant muy ñëw forêt bu ñu mujj a classé mu ngi daté de janvier 1968 xam ngeen ni loolu yàgg na président nag bu ñëwee ci diiru at yi mu fi toog fas yéene ci fan yi ñu jëm classé lu toll nii euh, fukki foore classée euh, loolu yaakaar naa ne président de la république li mu waxoon le trente 31 décembre 2018 euh, mooy que ni il faut que ñu préserver li nga xam ne moom mooy suñu patrimoine forestier su fukkee su fekkee ne bëgg nañu préserver intérêt génération yi nga xam ne moom mooy ñëw mais filndir na ko ci wàllu ambition ku créer agence bi nga xam ne bu day noonu la l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte jox ko ay jumtuwaay ne ko lu ñu bëgg mooy ñu delluwaat forêt bi moom ñëpp ñu delluwaat euh, reboiser forêt bi yëpp euh, dafa am loo xam ne lu ñuy tuddee afforestation ak reforestation euh, afforestation ak reforestation mooy dem foo xam ne musul am garab nga def garab loolu mooy afforestation reforestation mooy dem fi nga xam ne musoon na am garab nga delloo fa garab donc loolu mooy liggéeyu agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte bi nga xam ne euh, dafay liggéey en bonne intelligence avec la direction générale euh, des eaux avec la direction des eaux et forêts chasse et conservation des sols euh, mooy trajet autoroute Ila la bi yëpp ñu def de part et d'autre ñu def ci ay garab ba ñëpp séentu ne axe autoroutier boobu am na ay garab yuy màndargaal ni vision du chef de l'État président de la République bu defee li nga xam ne moom mooy euh, euh, projet bu mel noonu mooy infrastructure bu day noonu euh, jagleel ko Touba jagleel ko Sénégal yëpp je pense que il va falloir que ñu compléter loolu par des actions yi nga xam ne dafay jógee ci ndigalam mooy nañu fexe ba axe autoroute yi autoroutier yi ñu daal di leen reboiser mu daal di vert gis ay garab lu dalee Dakar ba Touba. nee na lu toll ni nag lu mel ni Ila Touba sooy daw nag jógeen Dakaru ba Touba da ngaa war a gis ci càmmoñ ak ki ndeyjoor yëpp ay garab yu ko taaral. Euh, am nañu yaakaar nag. ministre bi nag nee na am nañu yaakaar nag. boo si joxe joxe ndigal defal ñu si ñaan. nee na Mbàkke soo joxee ndigal te defal ko ci ñaan. Euh, yoonu Ila Touba bi dina mel ci ñaari voies yi nga xam ne moom moom la taaral bi ñuy dugg ci biir dëkk bi. nee na yoonu Ila Touba mi dina mel ni kat ñaari voies yi nga xam ne bi ñu dugg ci dëkk bi noonu la mel ci ay garab dina mel ni Touba gi ni mel. sa soo si joxee ndigal boo si jëflee boo ñu si deflee ñaan. nee na Mbàkke soo ki joxee ndigal ba pare dafa leen ci ñaan. fas nañu yéene. fas nañu yéene. bu ci yàlla andee. bu ci yàlla andee. ñu reboiser li nga xam ne moom mooy Ila Touba. ñu reboiser Ila Touba bi yëpp tàmbale ko ca Dakar ba ci biir Touba Mbacké. mu ne loolu mi ngi ci am mbégte bu baax. mu ne du ci dolli yaakaaram bu baax a baax. ndax loolu njëriñal ñëpp. mu ndax loolu njëriñal ñëpp la. kon nag eh, ko dégg yaakaar naa yëpp daañu ko mu ne yaakaar naa ne moom dana ko dégg waaye mbokki Sénégal yëpp danañ ko dégg noonu. suñu kéem kattan daan ko jottali mooy ñëpp mën cee ñëpp def ci yitte. mu ne nii nga xam ne moom la ko ministre bi jottalee moom incha allah dana ci def yitteem ba ñëpp mën ko déggee noonu def ci mu ne noonu rek la demee. gi nga xam ne moo la tax a jóg. gi njëkkoon ci waa kër Serigne Touba. ñi rawatina Cheikh Abdoul Ahad. mas na koo def nii ngeen koy defee. te ñu ko fi wutuwaat ñëpp itam noonee rek lañ koy yitteele woon ndax lislaam daf ko fonk lool ndax li ci nekk ci tiyaaba li ci ak li nga xam ne moo ci nekk ci ay njariñ te xam-xam andi ko kon nag bu yàlla defee président dénk ko am ci yow yaakaar ngir liggéey bi dañ koy rafetlu bu baax a baax. dañuy njëkkanteeg jaww ji. dañuy njëkkanteeg jaww ji. di jëmbat ay garab. ngir jaww ji mën a soppiku. ngir jaww ji mën a soppiku. kon nag fii. yàlla def na. yàlla def réew mi bindoo. buñ ci gënee def yitte rek. buñ ci gënee ci. mën naa dem ba. mën naa dem ba.